Eh, jaa ngeen jëf moo ngi noonu comme ni ko Sa Ndiogou waxee rek analyse bu amaam solo bi nga xam ne amal na ko lii nag dafa leer maanaam président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak premier ministre bii di Ousmane Sonko jamono bii nii ku leen bëgg a opposé wu ah, nar nga sonn ndax ñii nag ñu ngir jóge fi te ñun nag sax loolu la ñuy ñaan mooy ñu yàgg fi lool euh, te liggéey bi nga xam ne bëgg nañ ko undu nañ ko suñu borom daal si ànd ak ñoom su ko defee Sénégal mën a jëm kanam ndax gis nañ ne sénégalais yëpp surtout ndaw ñi ñëpp ñoom la ñu àndal léegi nag bu gisee ñoo xam ne politique moom yàgg nañ ci mën nañ ne ay ati at ñoo ngi ci nguur gu ñëw ñu bëgg a ànd ak yow yàgg fi lool ba ñu jépp leen ba teg fi ñu bees ñu bees ñi ñëw nag ñoom ñu bëgg a wëlbatikuwaat yu leen opposé wu Eh, ñun dañoo wara a sénégalais ci bopam jamono bi dañoo wara a xol bu baaxa baax né sénégal instant bi tek nañ ko si ay loxo yu set wecc ci loxo yoy ñuko tek nak ñun ñoo leen mëna gungé daal leen di dolel suko défé li ñu bëgg ñu daal di koy am ñom nak jamono bi seen bëgg-bëgg yépp moy nak fexé takalé ci di premier ministre bi ak président Bassirou Diomaye Diakhar fay gis nga sorti bi nga xamne sort nako lim wax leer na moy ñom ñaar mom ku yaakar seen ab mom dama ragal na yow mom est ce que sax nit nga waaw mu ngi noonu kon daal liñ leen di ñaanal rek mooy seen mbëbët bi nga xam ne bëgg nañ ko si Sénégal mu daal di àntu